رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله bu baax a baax di nuyu suñu mbokk internet yëpp di nuyu tous les pèlerins yi nga xam ne ñëw nañ tey pour def ci gàmmu fii ci Tivaouane ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax rek am contentement ndax ñun ay taalibe Seydil Hadji Malick lañ di sàkk lu baax ci kër Seydil Hadji Malick te Seydil Hadji Malick fonkoon gàmm trop ba tax na ñun ay taalibeem su gàmmu jub see rek dañuy def lépp lu ñu mën ngir lu bëggal Seydil Hadji Malick ak njabootam rawatina suñu sëriñ sëñ Abdou Aziz Al Amin loolu moo tax su gàmmu jotee rek lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi gàmmu ci la ñuy jël congé ci la ñuy arrêté presque suñu liggéey bu weer bi teroo moom suñu activité yëpp ci gàmmu lañ koy concentré dañu judd suñu wajur sax dafa judd fekk suñu mam daan ko def bu gamu joté mu jël gamu def ko muy activité suñu papa tam la même chose ñun ak suñuy frère ak suñuy mag suñuy rak ñun ñep njaboot gi bu gamu joté tam ah, dañ koy jël def ko suñu activité rek nga xamni vraiment activité bu am doole la ci ñun activité des xamni euh, bu très forte la vraiment mo bu gamu joté dal gamu quoi. rek lay ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi tarbiya daal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul suñu taalibe li doon taalibe Cheikh na Tidiane jafe-jafe yëpp ñu ngi ciy góorlu ngir yàlla nangul ñu ko ndax li ñuy def wareef la ci taalibe bu nekk mu xool luy bégal kër sëriñam lu ko yëkkati lu taxaw njabootu sëriñam loolu ci lañ nekk rek ah nekk giñ ci nekk nag dañ ciy sàkku ngërëm rek waaye wutuñu ci ngir ndamoo ko wala ngir puukaréewoo ko ngir leneen def bi ñu koy def sax ba nit ñi di ko jot wala nit ñi di ko gis sax dafa fekk ni dañ ci amoon ci ndigal ci suñu wasila rek sëñ Abdou Aziz Al Amin moo sàkk woon bu bis bi bu ñu koy def nañ ko ko indil ba mu teg ci bëtam ngir bëgg ci ngir bànneexu ci wane ni kat am na njaboot goo xam ni fonk na li Seydil Hadji Malick fonkoon muy gàmm moo waral sax ngeen gi suñ koy def média bi di ci jot wala keneen ndigalu sëñ Abdou lañ ci amoon ba tax nañu di ko def Lorek rek moo waral ñukay def yaakaar ni talibé bu nek wala jamm bu nek liggéeyal sëriñam warna pass pas war na waré fam li ñuy def dañuy dëggal suñu pas-pas rek ak yokk suñu pas-pas te gëm na ni liggéeyal yalla amul tanki ginnaaw ñun de ci suñu bop ak ci suñu wall gëm na ni bañu commencé diko def ba légui wax dëgg yalla yalla ak ñuy sutural yalla ak ñuy taxaw yalla ñuy jamm ci lepp lu mëna doon ba taxna duñu deñ mukk nak di yakamti gamu du jot buñu sañon sax gamu day am tous les 3 mois ngir ñu mun a liggéeyal yonante bi liggéeyal suñu maam Seydi El Hadji Malick wax dëgg yàlla li ñuy def nag li ñuy faral di wax rek yàlla buñ ci gis suñu bopp def biñ ciy def yàlla na lépp di yàlla yàlla na lépp nag tegu ci liggéeyal suñu maam Seydi El Hadji yàlla buñ ko ndamoo yàlla buñ ko bàkkoo yàlla buñ ko ngistale yàlla buñ ko wane te yàlla buñ ci gis suñu bopp nag képp ku yaakaar ni sax dañ cee gis suñu bopp ñu ngi ñaan yàlla nga ñaanal ñu ba yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla na lépp di jëfi yàlla rek subhaanahu wa taala waaye ndigal ak ndigal ak doxal kilifa moo koy def ñun ay taalibe lañ yu am ay projet am ay xalaat taalibe nag sañ na am xalaat waaye doxal ak jëfe moom loolu kilifa rek moo ko sañ am nañ xalaat bi wax nañ ko ñu ngi wax ñu koy jaar fi ko war jaar la ca des nag ci loxol kilifa yi la des ci loxol xalif général bi nga xam ne tey sëriñ Babacar Sy Mansour ñu ñaanal yal na yàlla yokk taxawaayam yal na yàlla yokk fanam ñun ay njabootam lañ ay taalibeem lañ. am nañ xalaat am nañ pas-pas te am nañ yéene ñu ngi koy déglu rek ba ndigal bu mu ñu ci jox incha allah ñu doxal ko ci. taalibe bi gën a ndaw ci taalibe yi la man xalaat bi génn na ci suma gémmeñ waxtaan nañ ko ak ñi ñu ko war a waxtaanal ñëpp li ci des kilifa yaa ngi koy doxal nag xam nga liggéey bi moom du liggéey bu ndaw liggéey bi dañ koy commencé ci suuf mu jëm ci kaw te wax dëgg yàlla ñi ci war a liggéey ak ñi ci war a wax ñëpp ñu ngi ciy liggéey li ci des daal heure buñ ci amee ndigal ci ki nga xam ne moo war a joxe ndigal te ñu war a déglu ndigalam ñu ngi koy déglu rek muy la xalif général mais ñun moom à notre niveau pas-pas la ñu am ak yéene ak wax waaye la cay dogal nag nañ ko bàyyi kilifa yi rek mais ñun moom am nañ yéene am nañ pas-pas am nañ pas-pas waaye itam dañu am kilifa di ko déglu rek fu mu ñu ni jaar leen foofu ñu jaar foofu incha allah. salaamu alayka ya ya allah السلام عليك ya habibi ya nabi allah يا رسول الله